إن الذي من الإله حست حاب أني كوني وفي فزت إن الذي من الإله حاب حاباني كوني وفي فزت إن الذي من الإله حاب حاباني كوني وفي إن الذي من الإله habani حباني كوني وفي فزت السلام عليكم mbokk juliti mbokk taalibe yi ñu leen di nuyu baax te di leen ziar te di leen jaale ki nga xam ne mooy tàkk sëriñ Fallou Ndiaye ñu ngi koy jaale mbooleem koo xam ne julli rawatina umul islam bi di ko jaale waa senk jiital ci seen jëwriñ sëriñ góor di ñaan tu tànk boobu dajee fàkk sëriñ Tuuba Mbàkke Xaadim Rasul ci bàkk sëriñ Tuuba